si nag si nag si na nga def ginnaaw la gis. maa ngi sant bu baax alhamdulilah waaw toogal toogal. mais dafa doon nañu. maa ngi am jàmm ni ngeen def ak liggéey bi. ñu ngi ni ngeen def ak coono yi. mbaar yéen a ngi am baax a baax. yow tamit mbaa yaa ngi am jàmm bu baax ngi sa bopp ci liggéey bu baax a ndax dama ne gis nga ku santul nit ku santul nit doo sant suñu borom maa la wax loolu yéen moom wax dëgg yàlla ba ma jàppanteeg yéen ba nëgëni gisuma ci lu ma naqari surtout nag surtout nag jarga walaay poulailler ba ma yor poulailler ba ma yor ca Cambérène eh wat naa ko ci yàlla ne gis nga lu woon ak jarga walaay mii ganaar ya dañuy nena nena nena nena nen ba man damaa mujj sax damaa tiit damaa bañ naa ko ba équipe type laa jël boo xam ni maanaam pour tonni leen képp la pour tonni leen képp la man daal wax dëgg yàlla pour wax la dëgg daal te yàlla rek nag tax maa ngi gis sama bopp ci liggéey bi maa ngi gis sama bopp ci sama collaboration ak yéen. ah waaw man daal ba ma jàpp ak yéen ba nag ni. Mm-hmm. ah waaye maa ngi ci gis sama bopp. ah loolu moom dëgg la maa ngi ci gis sama bopp di nga ci gis sa bopp. ah wér na wér na wér na wér na wér na wér na wér leer na naa ñu moom. sa oto bi jot na ñëw démb. boo bu démee mi ngi chargé. mi mi ngi yàpp waaw waaw. mu ngi koy chargé. léegi xanaa daanaka nga dem facturation ba rek. jërëjëf ah, jërëjëf waaw waaw waaw waaw waaw. dañuy jox la sa këyit bi rek nga jox ko mu génn te dem daal. <laughs> jërëjëf mooy mooy fi may fi may bañ a dégg rek kees xam nga man xaalis dama ko bëgg man dama man bañ naa ko bay di génne liquide bi sax léeg-léeg day seeg ma ko gënal ma xam ne këyit bu weex laa joxe loolu loolu baax bëgg naa nag waaw loolu laa bëgg fexe leen ba ñëw xam Cambérène poulailler dinañ fa ñëw dinañ fa ñëw ah, waaw kay bàyyi si la bu baax waaw kay ñëw leen fa ndax yéen xam naa ni kilim yi ak yéen ak jépir yi yéen xam naa ni ñu bëgg ganaar ngeen xam naa ni lekkati ganaar ngeen fexe leen fa jaar fa ma jox la di ganaar dinañ fa jaar bu baax a baax jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf jërëjëf mais ma directeur bu baax a baax dina ko dégg ne ko bàyyi daal nee na mi ngi gën di feddali kóllëre ak yéen incha allah dina ko dégg bu baax a baax mi gën di feddali ñun tamit ñu ngi feddali suñu kóllëre ak yow bu baax a baax jërëjëf maa ngi jëf jërë ngeen jëf daa ngeen jëf jërëjëf waay ah bisu mbégte laa ku bégul bég naa maxaade bég naa cëy gaay kenn du ñoom mardi kii nen la mardi kooku ay waay ndaw samba coppati ko ma xam ne ni ngay omelette yan yan nen la ah nen nga xam non damay laaj nee na ganaar yii nekk ci biir la wala wax neenu ganaar yi la kay yow kon yow sa yow yow yow yaay njëkk a dee la njëkk a laal. <laughs> lu la nga wax loolu. yow xanaa déggoo bàyyi gannaaw li mu defoon li mu waxoon. yow daal yow daal man xam naa ne daal yow c'est la l'appel daal yow. ah. waa kay nationalité bi nga am fu mu féete nationalité bi yow ngay booy town nationalité bi fan la féete. waaw ah, man xam nga ci la. non non diggante ci laak warak jaajoor ne daal la man falaa dëkk falan ma sangee. yaa ngi may dégg seen yii ngeen nekk ma ci lii lan la eh. lii lan la rek kon sa téere yi nga ko wékk xam nga tubaab li naan cible <laughs> invisible maa la wax lii ok kon yow fii nga ko fii rek la euh, maxa jox ma ñeenti ganaar may dem dama koy livre doo ñam ci neen yi ii man baax na li ma fi dal yi fii yëpp doo ñëw lekk baax na xoolal te benn bi nag laa takk de su ma takkee yëpp doo dooma xaarama wala est-ce que yaa ngi may gis déedéet gisuma la de. gisoo ma de bàyyil ma jël waaye yow jëlal man ginnaaw liggéey bi. alhamdulilah alhamdulilah yàlla li yàlla gën a defal jàmm. waaw kay kii baa ngi nii set baa ngi nii waaw kay <laughs> nañ defar liggéey bi. ba jamono yi damaa demoon Tugal. moo tax ma gëj a ñëw <laughs> ñu ñëpp ak jàmm alhamdulilah. alhamdulilah alhamdulilah kon kay gën ngeen baax na. jërë jam-jam ndax yéen moom wax dëgg yàlla yàgg nañu mën ak yéen yàgg nañu trop moom yàgg nañu trop ko xam bàyyi ganaar ak garaam mu ne xam ne yàgg nañu waaw koy ay jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf booba waaw waaw waaw ne sama oto baa ñëw mooy benn oto ba rek benn oto baa ñëw directeur bu baax ko ngi gën di fendali sama pël rek moom ne ko bàyyi lii nuyu ndax kër gi xam sama kër wax dëgg yàlla bàyyi ak garaam mu ne benn la kenn leen ghiêng vô mày ai xin vô đây vô vô đây ghiêng vô ai ai ai ai tim to mình mà đã đây ra mà bây giờ ra bờ lại tam ya cũng một ra ya Salim Tara Wardaya Wasidini ulo Udan ya Rabbi Rabbi, Rabbi sifil bohdi wal khurban